ginnaaw bu ñu sant yàlla bi ñu mayee ñu fekkee euh, weer bu sellee ni weeru koor may ñu ko ñu woor ko ci jàmm euh, ñaan yàlla barke yi ñu ci wax ci weeru kër yëpp mu wàcc ci bépp sénégalais mais aussi ci Afrique ci àddina bi yëpp euh, jàmm ji lalu ci Sénégal continuer di fi wéy te sénégalais yi jafe-jafe yu nekk mu wàññeeku profité itam ndokkeel njiitu réew mi li nga xam ne mooy ñu jox confiance ba li ñuy def tey di ko def ci biir réew mi ak ci Kaffrine bu ñu dëkk foofu laa bëgg a terminer itam Kaffrine yàlla def na ni man maa fay maire Sénégal gépp bu amee jàmm te Kaffrine amul jàmm dara du ci neex kon nag su ma Sénégal ak Afrique jàmm maa ngi koy commencé ci Kaffrine bi ma dëkk. li jàpp mooy euh, si jeunesse Sénégal d'abord euh, ndaw mooy force ab réew euh, ndaw ci xeex ak ci ñafe lay mën a accomplir àddinam mais aussi euh, accomplir ay waajuram euh, dama jàpp ni euh, moteuru réew ab ndaw la kon ndaw yi dañu leen war a tàggat war leen formater mais aussi war leen jàppale ci lu nekk foog naa ni loolu la ci le président Macky Sall nekk à travers initiative yu bëree bëri yu nga xam ne mosu fee am mu commencé ko yu mel ni DER yu mel ni 3FPT yu mel ni FONGIP yëpp di jàppale xale yi lu bokkul ak li nga xam ne mu ngi ci ministère de la jeunesse mu gën koo dooleel mu gën ko yaatal kon yaakaar bi ak euh, li ñu def ci école yi li ñu def ci université yi li ñu def ci centre de formation professionnelle yi euh, li ñu def aussi ci jumtukaayu sport parce que xale aussi moo yore sport loolu lépp président bu bëgg wane volonté ci li nga xam ne bëgg yéene na ko xale yi ba ci mujjantal ga ci maison de la citoyenneté bu nga xam ne bu nekk daanaka dana jar benn milliard mu bu koo def ci 45 46 département au Sénégal yépp pour xale yi am jumtukaay fu ñu defaree seen bopp mais fu ñu mën a xalaate ak defaraat li nga xam ne moom mooy seen ëllëg loolu nag àndut ak àndut ak xeex àndut ak xuloo amul kenn ku mën a yore destin wu nit ci àddina dama jàpp ne xale bu nekk jeune bu nekk ak fu mënta nekk premier viatique am mooy ñefe deuxième viatique bi état bi créé ay conditions yi nga xam ne ñeefeem bi mën a am njëriñ mais na gëm boppam d'abord euh, gëm ni réew mi ñum ñoo ko bokk te comme ni doon Kennedy Kennedy di wax euh, ñu bañ a xaar lépp jóge ci état mais ñoom itam ñu xool la lañ lan lañ mën defal seen réew te am naa yaakaar ci jeunesse bi ñu am c'est une jeunesse boo xam ne mën nañ fondé ci ñoom pour le pour construire le futur et réew bi nga xam ni suñu maamaati maam ñoo ko fondé ëllëg ñoom itamit buñ koy tra joxe drapeau bi ñu jox ko ci anam yu rafet ci politique bi nag loolu politique euh, débat ak opinion ak wa ak werante moo ànd ak démocratie moo ànd ak politique ma yem ma bëgg ñaan yàlla rek mu yem ci débat mu yem ci opinion mu yem ci combat de d'argument Eh, ñu bañ ko yóbbu feneen fu dul foofu te ñu xam ni démocratie li ko lal mooy askan wi moo yore pouvoir askan wi moo yore doole ak lu ñu mënta wax nañu bàyyi askan bi atte askan bi atte ko ci ni mu gën a rafetee ku yàlla jox ndam ci élection yi di ñëw ñu xam ni Sénégal ak ko jox ndam mais ba ñu jaay xëtër xëtër yi jaay dënn euh, foog na mën nga jaay doole nit ou bien nit non loolu foog naa ni ku ci nekk ci ñun war na koo sàmm muy pouvoir muy opposition ñu xam ne république bi bi ñu legee dañ ko war comme ni ma ko waxee ci ndaw yi république boobu danañ waxtu danañ ma sa jot ñu legee ko ay une autre génération mooy mu nekk ci jàmm maa ngi baalu ak sénégalais yëpp xam nga boo nekkee acteur politique public dafay nekk toujours da nga am foo juumee am foo faxastaloo ci wax ou bien ci jëfin euh, sénégalais bu mu mënta nekk ak euh, bi ma xam ak bi ma xamul bi toog këram di ma seetaan parfois ci télé ou bien déglu ma ci rajo ou bien ci sama action ak ci ma posé ci responsabilité yu ma président confié confié ou bien responsabilité yu ma waa Kaffrine confié à travers la mairie mën na am ma ju am jumte mën na am ku ma ci tooñ maa ngi ciy jégalu ku ci nekk ak fu mënta nekk maa ngi ciy jégalu ak âge boo mënta am maa ngi ciy jégalu bu fekkee ne benn yoon def naa lu la naqari du loolu laa ci jubloon di baal ñëpp itam xam ne aussi euh, homme politique la nit dana ma wax lu ma lu amut euh, nit dana dana ma dana ma dana ma wax la nga xam ne lu rafetul lu ñaaw mais loolu yëpp damay jàpp ni jeu démocratique noonu ñooñ ñëpp bis ni ki tey jégal naa ñëpp di jégalu ci ñëpp ñaan yàlla yàlla may ñu jàmm ci biir réew mi yàlla may ñu euh, nattaange ci biir mi yàlla mayaat ñu lu nga xam ne loolu la ñu mos a may mooy Sénégal nekk référence ci Afrique ak ci àddina bi